dëddu àdduna wane ginnaaw bàyyi fi leer des ci xol yi fan di ko jooy ba tey moom ndongo ñaan baalo ku amoon yërmande ci doomu aadama la bëgg ay waajuram rawatina yaayam Mareetu Faal bëgg ay rakkam fonkoon ay fansam lool lool ndaanaan su daanoo coow li bare yi ku we di laaj ma Cheikh Fallou kii sigil na maay dal leen ak jàmm ñu ànd ak yéen ci fàttaliku ndaanaan su deewee jëf ja du niil ndax nettali ba ki ko fi woyoon di ndongolo waaye ku seetlu ay mbiram dëgg-dëgg di nga xam ne moom moomule jëmmal na kàddu yi laata muy génn àdduna ci weerum janvier atum 2005 lu ëpp ci ay naataango musicien defal nañ ko seede bu rafet añ ko ci ñàmbaaram tagg ko ci ay jikkoom ak xolam bu yaatu doomu yaay mareetu Fall Dia jóge woon fu sori am ay jaar-jaar yu métti laata mu yegg fi mu yeggoon bés ak bés guddi ci kaw bëccëg ndànk-ndànk nongoloo guddee na woykat ba ndaanaan ba dem na ca bésib dibeer la woon tolloog ñaar fukk ak juróom benn ci weerum janvier ca atum 2005 ci bés yu topp ci anniversaire am ci la daldi génn àdduna ngi ñi dëddu fii ci réewum Sénégal ca clinique Casaous bu Dakar ndaanaan gu tolloon ci diggu dooleem ndax ci fanweeri at dong ci la génn àdduna weer yu mujj ci dundam Ndongo Lo mu ngi nekkoon di jëmbal li nga xamante ne mooy album bi mujj bi nga xamante ne moom lay amal ci dundam génn ci weerum décembre 2004 mu tuddee woon ko àdduna nekkoon nit ku wàccee boppam yiiw yaatu tabee te am pas-pas ci liggéeyam bi muy musique ànd ak loolu mu amoon taxawaayu taalibe bu fës ci yoonu murit moom Ndongo jot na fi amal ay album ak i wëy yoo xamante ne yu am solo la lool te yéeme lool suñu ko nattee ci dundam bu ci mel ni ndorteel di wane tàmbaleem ci wàllu musique te ci boobule morceau te ci boobule album morceau bi ci gën a siiw mooy bi mu jagleel yaayam ñu di ko woowee sama yaay ci boobule morceau Ndongo Lo di ci delloo njëkkal yaayam ja yaay Mareetu Faal ak képp kuy yaay wayam bu njëkk di Pikine ca ba mu tàmbalee rek ci la commencé siiw ñëpp bëggu ko ku di ko woy Ndongo Lo dëddu àdduna wane ginnaaw fi leer des ci xol yi moom ndongo ñaan baalo ku amoon yërmande ci doomu aadama la woon bëgg ay waajuram rawatina yaayam Marietou Fall bëgg ay rakam fonkoon ay fansam lool lool yaaw ndaanaan su daanoo foog coow li ku we di laaj ma Cheikh Fallou kii sigil na maay. ne xam na ni bopp maa ngi lay kenn daa ko way. fa maa ngi di toog fa toog kii moo affaire yi di jàng woy ba mu jëm kaw su woyee ni ma ndax yaay lii bu ma ko waxee mu dem ma ne ko waaye soo ko waxee mu dem su demee ay tànn bee rek mbappat ak làmb ak simb yi mu daan def moom la daan wayantoo waaw su woyee ba ñëw lu mu ci fortaatu daf naan ma yaay am mus ci denc dara ajaratooy di ko dégg te ajagoo ajaama reetu fa masamba nene isoyo ko dëgg mu faalu lee yaay su woyee ba ñëw lu mu ci fortaatu daf naan ma yaay am mus ci denc dara yërëmoon ma nag jàppale ma bëgg ra ay waay am saaliba kiri mooy rëddi di maye man lii moo may sama baay kër sa jàng ko dongo bi mooy fote ay sangutul jeexle jàmba di nuyu sénégalais yi ah, di wax suñu ci Ndongo Lo di kàddu di ko yëkkati ci turu fan sa Ndongo yëpp di leen fàttali ne Ndongo Lo na ko ba pare suñu diggante ak moom rek ñun ñoo ci des dañ koy bàyyi xel di ko fàttaliku di ko ñaanal dañuy ñaanal Ndongo Lo képp kuy béggee Ndongo Lo bul ko fàtte ci ñaan ndax fu mu waxee rek bégal sama fans yi la ciy teg bégal sama fans yi dañ ma bëgg te dama leen di bégal ba ba may dee kon nga la bu fekkee dem na jiitu ji nañ dañ koy bàyyi xel di ko ñaanal saa su ne di ko fàttaliku ndax li mu waroon def ak ñun def na defal nañu ko ba pare Ndongo Lo ñun ñoo ci des nañu. moom moo ma tax a tuuti moo ma tere nelaw. fexe ba sama fan si ba ñu rus ëllëg si biir quoi. Mhm. parce que tey day paase sax coow li dëgg la mais day paase. damay ñaan yàlla mu may ma xel bi. mu mhm. bàyyi ko fi ak kàttan gi ak baat bi. Mhm. ba ma mën di gën a bégal mu fan morso Pikine boobu mu ngi ci delloo njukkal kii di Mouhamed Ndao Tyson nekk doomu Pikine daanaka boobule morso moo tax daanaka ñu jox ko tiituru espoir de la scène musicale sénégalaise ca atum 2001 bam ca jógee ci la tàmbali di wone dëgg-dëgg boppam ak xarañteefam ci tournée yi mu doon def international fu ne ci bitim réew atum 2002 mu tàmbali def ay concert fële ca France ak ca Italie ànd ak loolu génnee beneen album bu bees tuddee ko tarxiis ñu tegoon ko ca Europe ca weerum juillet 2003 jooju ci loxo yi Africa Production at ma ca topp di 2004 ci la préparer nag albumum bu mujj bi mu tuddee àdduna nekkoon ab CD bu mu destiné communauté internationale maanaam ñëpp ci àdduna bi ba mu daj waaye ndeysaan xalam demoon na bay neex buum nga dal di doog te nongolo du fekkee mukk dayoo ab ak solo bu nga xamante ne moom la albumum bu mujj boobu di àdduna di am ci réew ci soirée bu mu doon animé fële ca yëngu leen ci la daal am ab malaise ñu jël ko ci ni mu gën a gaaw daal di koy yóbbu ca clinique Casarousse ci clinique boobu moom Ndongo def na fa ñaari fan ginnaaw gi ci la génn àdduna talent bu mu amoon ak taxawaayam ci art musical bi mayoon na ko mu bokk ci ñuñ fi gën a sopp ànd ak loolu sénégalais yu bari bëggoon ko rawatina waa banlieue Ndongo Lo dem na ndaanaan ba guddee na réew mi nee na selaw xol yu bari tooy nañ rongañ yu bari tuuru nañ ngir demu Ndongo